jullit ñëpp di leen ci turu alxalifatul am li taifatil muridiyya sëriñ Muntaxa Mbàkke mi ngi ndokkal jullit yi mbokkal lislaam bi yëpp ci bis bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk di ndokkil fu ab jullit mën a ne rek kilifa yi diine yi ak ñi ñi def ñëpp ñi ngi leen di ndok mi ngi leen di ndokkeel ci bis bi ñi ngi toroxlu ci yàlla ci bis bu màgg bi ñu toll ak weeru màgg wi ñu jóge di ñaan yàlla defal nu nongul nu suñ koor nongul ñu suñu naafila ak suñuy roko ak suñuy sujjóot saxal ci réew mi ak ci ñun jàmm ju ànd akok ak dal ak dund bu yaatu teetal suñu réew yépp suñ dëkk yépp mu teetal mu musal ñu ci fitna fitna ju nëbb ak ju feeñ te mayaat ñu ñu fekke waat weer wu tedd wii nga xam ne saaba yi bu mas bis bi jàllee rek ñu tàmbaliwaat ñaan fekke ko ndax yi wu rëy wi ci ne wiñ ci man a wute di ñaan yàlla wattu lislaam te wattuñu ci hinaayatoom moom suñ borom ndax moom lu ko neex mu amal ko kon nag yàlla yàlla na nga yàlla na ñu bëggaloo liimaan tarfetal ko ci suñ xol bañ looñu ñu kéefër akuk caay-caay akuk mooy yàlla te boole ñu ci njub ñi ngi leen di jot li sëñ Muntaxa ay kàddu yu mu wax rek naa leen soññi ci diine ji soññi leen ci taalibe gi soññi leen ci jàmm jàmm jàmm ci boppam kon yàlla na ko yàlla defal ñi ngi leen di nuyu di leen xamal ne koor daa doon loo ne bu jàllee lu ne bundi bu ne mën nga ko cee jànge bokk na ci bi nga xam ne nag moom laa ci bëgg a tomb eh, indi moom ñu jànge ko ci mooy li nga xam ne moom la ñuy wax amaanatu ndax amaanatu yàlla da ko fonk ba wax ko ci alquran lu bari yonent bi fonk ko wax ko ci hadis lu bari amaanatu mooy li la yàlla farataal ci jaam bi maa faradahu llahu ala ba tey mooy mooy safaanu xiyaanatu moy wóor waaw mooy mooy lii la yàlla digal nga di ko def te yàlla dafa wax ci alquran ne inna allaha yaamurukum an tuaddu lamaanaati ila ahliha wa isa xakamtum bayna annaasi an taxkumu bil adl inna allaha nicma yaisukum bi ne laa kaana samihan basira koo amal amaanatu war nga koo delloo kon amaanatu lu ñor yàlla la amaana nag ku ne am nga ko sa digganteeg sa bopp am nga ko sa digganteeg yàlla am ko sa digganteeg mbindeef bi am ko sa digganteeg sa liggéey amaanatul abdi maha rabbihi wa huwa maa uhida ilayhi hifsuhu min al itimaari bihi sa digganteeg sa borom lii la nga xam ne mooy amaanatu bi dox sa digganteeg yàlla yow ci sa digganteeg yàlla mooy li la yàlla sàmmloo ci ay ndigalam ak lim la sàmmloo ci ay tereem nga necce te bañ caa jóg te loo ci ricci ba def ko nga tuub ko loolu mu boo ko defee am nga amaanatu sa diggante sa borom amaanatul xabdi mahan naasi sa sa diggante sa moroomum jaam mooy amaanatu daam buñ ci yàlla gàll loola mooy lan raddul radaihi raddul wadaihi ila arbaabiha wa xadamil xishi wa xafsi sirri wa nawi salik loola mooy ku la dénk dara bu dundatul sax nanga ko delloo rawatina buy dund ta bul bul bul wor jar maanaam mooy li ñuy wax rek bul bul wor te mbóot moo séq ak nit deg ko nëbbal loolu moo boo ko defee amaat amaanatu gi dox sa diggante ci jaam bi ak nit ki matal na ko amaanatu bu dee euh, kilifay adduna yi ak kilifay lislaam yi ñoom ñëpp ku ne amaanatu war naa la sa diggante ak sa njaboot la war ci sa njaboot ci taxawu leen ak ak ak seen mbir ñor la ak di ko jaarale yoon loola war na kilifa adduna gu ne waaye borom nituk yàlla kon nitu borom xam-xam bu ne it war na ko mu jubbanti nit ñi ci seen pëstéef ak seeni jëf ci lépp loo xam ne xam na ne bu ko waxee mu jëriñ leen ci adduna wala mu jëriñ leen ci àllaaxira mu di leen ko wax moom it loolu mooy amaanatum war na ko def war naa waar nit ñi it ba ñuy wut lu lew ak di di leen soññ ci luy dëgëral seen ngëm loolu ba tey war na kilifa diine mooy bu ko defee amaanatoom def na ko kon ku ne daam lo diggante nit waxadulu rajuli ma sawjati nit ak soxnaam it amaanatu war na ci yoo xam ne yonent bi moo ko indi nee nag nit ak soxnaam kenn waru cee nettali sa mbóotu moroom bu fekkee yéen ñaar ñëpp wattu ngeen loolu mu yéen amaanatu bi war ci diggante nit ak soxnaam def ngeen ko ndax yonent bi dafa wax ne bokk na ci li gën a ñaaw nit inna min yi man asarri nnaasi hindallaahi mansilatan yowma qiyaama arrajula yufdi ila amrati ila amratihi wa tufdi ilayhi suma yansuru sirraha la nga séq ak sa soxna nga génn di ko weer wala moom la mu génn di ko weer loolu yonent bi nee ne bokk na ci li yées ba tey amaanatul insaani maha nafsihi nit am na moo mook boppam képp am na amaana boo xam ne moo moo war ci diggante mook boppam ku ne moo loola mooy ku ne war ngaa seet bi an laa yaxtaara li nafsihi illa ma huwa aslam wal anfahu lahu fi diini wal fi diini wa fi diini wa dunya mooy yow sa bopp bala ngaa dugg ci lenn nga xool ba xam loola amal njariñ la ci diine wala looy amal njariñ ci adduna bu fekkee yaa ngi koy natte noonu amaanatu bi war sa digganteek sa bopp yaa ngi koy jëf boo ko defut yaa ngi tooñ sa bopp ndax yaa ngi yaa ngi dugal ci lu mu wëtt dugg amaanatu nag ñor gi ñor yàlla moo tax yonent yépp mu sant leen ko mu doon ay melo yoo xam ne ñoom ñépp da leen ne na ngeen koy def te ko jot li moo tax yonent bi sax alxuraan ne ko yaa ayyuha rasulu balligh ma unsila ilayka min rabbik wa in lam tafal fa ma ballaxta risalaati wallahu yaasimuka min annas inna allaha la yahdi alqawma alkafirin yonent bi am amaanatu bi ma la gàll dee ko jotal nit ñi boo ko deful boo ko defut li ma la sant defoo kon xam nga lool ñor ñor na yàlla moo tax yonent bi doon ki gën a mat ci ki gën a jotal ni ko yàlla bëggee moo tax daana wax ne laatu tu aminoona nii laatu am tu nii wa ana aminu man fi sama yi yaati xabaru sama yi lu tax lu tax ngeen di ma bañ a wóolu te man ñi ci asamaan si wóolu nañ ma subaa ngoon dañ may dikkal di ma jox seeni xabaar kon mboolem yonent yi fi mas a jaar ñëpp xuluxul amaanati yàlla diggal na leen ko Abu Sufyaan ku ne xam na dégg naw am na boo xam ne dafa dem ci Iraql mooy ki ci xasimu Rom mooy ki buurub Rom Rom mu ne ko waaw seen yonent bi eh, li muy digle laa bëgg a xam loolu mooy lan Abu Sufyaan seet li mënut a ñàkk ci lislaam wax ko ko mu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doonoon doon digal innahu salaati was sidqi wal afaafi wal wafaa'i bil aadi wa adaa'i al amaanati fa qaala lahu Hirql haasi sifatu nabiyyin Hirql moom ne ko bi mu nee ko lu seen yonent bi lu muy digle mu ne ko dana digle dañu julli dana digle it kuy wax nga wax dëgg dana digle it ñu fegu bañ a def leen lu naqar yàlla danañu digal it ñu matal wóllëre danañu jóge kenn ku ne amaanatu bala war mooy yu mel ni yi may lim nga di ko jox mu ne ko ah li ngay wax di ab yonent mooy moo war a mel noonu xeraqal mi nga xam ne moo doonoon kilifa Rome loolu la ca tontu kon yonent bi mooy ki gën a misaalu ci li ñuy wut ci amaanatu njollaxtan la yonent bi la wala xat tamassala xulxul amaanat fi ahla suwarihi ak mali maani fi sax sayidna muhammadin ba yi sax dañ ko daat xata ina ahdaahu wa xusuumahu kaano yulaqaboonahu bi saadixil amin yonent bi bim laataa doonub yonent ñim dëkkaloon ñim ci jubóolutoon ñim bokkalutoon ñëpp ak ñi nga xam ne bi muy door a woote gëmuñ ko ñoom ñëpp amiin lañ ko tuddee ndax turu amiin yi moo jiite yonent moo jiite yonent gi te amaanatu gi mu doon jox moo ko may kon ab jullit ana nu mu war a melawoo alxuraan dane wa imma taxaafanna min qawmin xiyaanatan fan bis ilayhim ala sawa inna allaha la yuhibbul boo ragalee ci aw nit ñoo bëgg a jaxasoon nga ragal ci ñoom dañuy wor wàcc leen ñoom ñëpp sallallahu alayhi wa nee na ab julit wërta wor sax ki koy wor fal mu'minu laa yaxarifu alxiyaanata xatta mahal xaayinin ba dajee ko workat sax gom ne ni muy def ni ñu danaa ko ni def na ko wan li lislaam jàngale rek muy bañ bañ ko wor abu hurayrata nee na yonent bi sallallahu nee na addil amaanata ila mani tamanaka wala taxun man xaanaka yonent bi nee na amaanatu boobu ma doon wax koo ko séqal na ko ko jox ki la wor sax bu ko wor kon waxaat na feneen moom yonent bi boo xam ne ci addis la ne ayatul munafiqi salaatun isaa addasa kazaba wa isaa waada axlafa wa isaa tumina xaana mandargam naafiq boo ko boo ko bëggee xam ñett la saa bu waxtaanee dana wax lu amut saa bu la joxe dël dana wor saa boo ko joxee amaanatu boobu moom wor la yàlla na ci yàlla kon sallallahu alayhi wa sallam na ngëmu koo xam ne dangay ngay wor ndax nee na laa imaana man laa amaana la wala diina liman laa ahda la yonent bi daana ko faral di wax lool ci xutba yi ngëm amut ku wóor ku doonu nit ku wóor amoo ngëm waaye ku amut kóllëre amoo diine loolu la yeneen bi wax